إذ بخدمة الماء زني سكرت وإذ بخدمة الماء زني ما زني ذا خدمتي في علني لو وفاك ولمي لو خطا بداخيا بما يخيب ماديا من خاد لي أغراديا زادا لدار كرمي أيا سودان جوغلين دقلو موسى سرين توبا متقفي مصطفى من ووياس gëjoona way ngir gaay sàcc taalif te ñoom seeni baay ferul baasin fa yaasin su bokkunu waay xudoo su réewi soodaan gumbay xeleer yi sax di balamtu yaasin ak a neexoon tey maam angaaru xaalis kon ma ni meng dem ba siyaara yaasin diggoon dëgg xëy diggoon dëgg xëy ba faf dee auzu billah bismillah ni wala yàlla jërëjëf borom Touba Xadim Rasul jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lampal Mouride mbokk internet yu Dias di TV rek ni ngeen ko gisee boob ba tey ñu di leen ko jox ci biir 18 safar 2020 en intégralité et en live yi nga xamante ni mooy Touba Mbacké ci dëkkub Cheikh Ahmadoul Khadim Khadimul Moustapha sunu yaakaar teeg ëllëg ak woote gi nga xamante ni wooteel na ko àdduna wërngal képp ngir ñu mën a ñëw santale ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci liggéey bi nga xamante ni suñu borom santoon na ko ko mu liggéeyal ko ci ba am ci ndam lam ko ca fayee mu ko waat di ko ci delloo njukkal woo ci àdduna wërngal képp ngir kenn ku nekk mën a ñëw bokk ànd ak moom bés bi. tey jii mu doon bés bu am solo doon bés bu doy waar li tax dafa bëri ay daje yoo xam ne da cee xew bi ci jiitu ñii nga ñuy xamal ni ci saayir màggal gi nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaar njëkk na ko woote ci àdduna mi ngi ko woote woon en 1921. dégg nañu itam ci mag ñi ñu wax ñu ni ci jamono booba am na xew-xew boo xamante ne amoon na ci jamono ja tombe woon xeetu mbas mu mel ni mii nga xamante ni dëppoon na ak moom ren ji ci 2020 mu mel ni kon dafa am firnde yoo xamante ni mi ngi ñëwaat ci biir màggal gi waaye ay seede ay témoignages yoo xamante ni ni ngeen ko déggee loolu 1921 ñu nekk ci 2020 mu mel ni presque 100 ans après ou bien 99 ans après xew-xew la mu tombé loon ca jamono boobu tombé waat ak moom ren jii ci mbas mi ndax mbasu coronavirus bi ku ne dégg na ko waaye ñu gisi tamit Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifatul am fi tarixatul muridiyya ndigal li nga xamante ne joxe na ko digle yi mu joxe taxaw bi moo xamante ne jox na ko ndigal mbooleem taalibe yi ngir kenn ku ne war ko mën a taxaw ni ngeen ñu giseen ñu takk koy masque mbooleem koo xam ne yéen a ngi koy gis ci li wër Touba ci jumaa ji ci xabru yi ci bërëb yi kenn ku ci nekk mi ngi respecté mesures yi nga xamante ni mooy mesure d'hygiène yi nga xamante ni moom la askan wi moom la état yi moom la administration sénégalaise digle woon ngir ñu taxawu kon moom wàccoon na ak ñoom wàccoon na ak askan wi waaye wàccoon na tam ak administration bi ndax ni ma ko waxoon ci sama njëlbeen bi ñuy dugg si ci Touba fële ca jannatu mesure de barrière yi nga xamante ni moom la digle bi mu ko diglee ba noppi itam suñu borom dafa dogal ni da koo njëkk def nangoon nañ ci ay doomi sëñ Fallou ñu ni ñoom ñi ngi takk mask ñi ngi laal ci gel yi di diwu waaye nee nañ defuñu ko ngir ragal tawa ji wala dara de waaye dañ koy def ngir barkeeloo ko ndax gis nañ Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ibnu Khalil Cheikh Mamadou Bassirou def ko ba tax ñoom ñu koy def ngir barkeeloo ko ndax def gam ko def kon mel ni kon màggal gi moom du ragal du tiit du dara moo tax murid ji jël tak ko waaye wàccoo ak administration sénégalaise ci li nga xamante ne santaane woon nañ ko ci mesure de barrière yi fët foo xamante ni mbooloo mi ngi fay daje moo tax ñu def ko ak barkeeloo ko li tax mooy suñu xalif général bi nga xamante ni mooy Cheikh Modou Mountakha Mbacké moom la def di ko barkeeloo ci liggéey kon nag ni ngeen ko gisee ñi nga taxaw nii ci bunt biir jumaa ji nekk itam ci bërëb bu doy waar ndax bërëb bu Cheikhul Khadim Khadimul Khadim suñu yaakaar teeg ëllëg bërëbam bi fa la jaami yàlla yi di génnee nii ñu jàkkaarloo nii ak sëñ Modou Moussa Mbacké taawam ba waaye jàkkaarloo nii ak Cheikh Modou Fadal Mbacké ka yëgale liggéeyam ba kon ngeen xam ni kon Diassigui TV en intégralité ci 18 safar 2020 gis ngeen lem leen ci indil yëpp dem nañ fu ne dugg nañ fu ne noonte nag mataluñu fépp ndax nee nañ fara ku mën a matal lépp moom yàlla rek a mën a matal lépp ba tax na wax dëgg yàlla jëm nañ suñu kémtolaay kattan intégralité ci biir màggal gi tooguñu taxawuñu lekkuñu naanuñu ngir mën a am loo xamante ni dinañ ko digtal askan yoo xamante ni ñooy bàyyi xel Diassigui TV rawatina suñu mbokk internet yi. ci biir loolu itam ñu leen wax ne rek di ngeen ñu topp ñu dugg siyaar barab yi gannaaw bi nga xam ne ñu ngi ci biir jumaa ji dugg nañ siyaar jumaa ji génn jaar ci bërëb ku tedd ba génn taxaw ni ci bunt bi ni wax dëgg yàlla ne nañ leen fi joxe information yi nga xamante ni moom lañ leen Diassigui TV di mujj a jox ci li nga xamante ni mooy 18 safar 2020 bokk na ci buñ ñu fa jógee dugg fa la nga xam ne mooy ci bërëbu sëñ Fallou ba saafonte ak moom ñaanaat ko Mbàkke Bàlla ndax ne nañ moom dafa mën kanamam waaye dafa mën ginnaawam ba tax na ci ginnaawam bi nga xam ne ñun moom la ñu fekkee bëgg nañu faa dugg saafonte ak moom ñaan ko mu ñaanal ñu defal ñu taw tawfeex ba mbooleem li nga xamante ni mooy naalu mur ji ak seenu yéen ak seenu pas-pas sans borom yeggaleel ko waaye ñaanalaat bu baax a baax Cheikh Madoul Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Madoul Bachir xalifatul am fi tarixatul muridiyya mu yeggali yan bi ak sagoom te nu ànd ko ak moom ci daraje Cheikhul Khadim kon ni ñu def rek mooy sama caméraman daf may topp ñu dugg ci bërëbu Cheikh Modou Fadal Mbacké bi gannaaw moom la mag ñi wax ni dafa mën kanamam mën ginnaawam ñun danañ ñëw nañ ci ginnaawam bëgg nañu saafoonteeg moom waxtaan ak moom tallal ko moom mi na kanamam mën ginnaawam mu ñaanal ñun ñi nga xam ne dañoo kon sama caméraman da may topp ñu dem buñ fa jógee rek daal di tàkkatoo incha allah ci kattanu suñu borom خدمة الماء سني سكرت وإذ خزني بخدمة الماء سني ماء سني زا خدمتي في علني لو وفاك ولمي لو خطا بداخيا بما يخيب ما ديا ba tey rek su ko defee mbokk julli ñi nga xamante ne yéen a ngi topp ah, waa Diassigui TV ba tey ci biir 18 safar 2020 ni ma leen ko waxee woon rek boobu ba tey bàyyiwuñu dara leen lépp loo xamante ni doon na loo xamante ni lu bokk ci magal gi la wala mu aju ci rek fas na nañ ko yéene incha allahu rabi taala jagleel leen ko bi nu génnee ci bërëbu ku tedd ki Cheikh du Bamba Khadim Rasoul yaakaaru jaam ñi tey ëllëg gis nga fa ñu taxaw itam dugg nañ ci bërëb bi xam ne mooy Cheikh Modou Moussa Mbacké taw bu tedd ba sha allah rabbi ñu ñaan sama borom bo ñu taas ci barke me waye bañ fa génnee tam gis ngeen ko ni ñu dugg ci bi nga xamanteni moy borom Cheikh Modou Fadal Mbacké borom ak boogo borom dindeek sam borom na am mom likoy sabab nak mbir la ndax mag ñi dañ ne seigne fallu mom mën na kanam mën na ginnaawam ñun ñi juddu ñëpp wala ñun ñi taxaw di wax ñëpp kenn ku ci ne gisoo seigne fallu dégg rek nga am ci seigne fallu waye gëm ni la mag ñoo doon wax ni seigne fallu mom mën na kanam mën na tax na tey jii fi mu toll nii boo xoolee mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci biir bërëb bi ndaw lañ du ma ne kenn gisu ko fi de waaye lépp ci ñi fi ne moom gisuñu suñu fal dañu koy dégg rek ba tax na duñu def rek lu dul jël ci benn wala ñaar ci ay mbokk taalibe yoo xam ne ci bërëb bi lañ ñëwoon siyaar si ko ndax xam nee naa sëñ Fallou deesu ko xam waaye la ñuy taataan ci moom di ko xentu ca moom di ko yaakaar ci moom te saa su ne bés bu ne mu dinu ci woon ay firnde yu ndax ñun ñi nekk ak doomam ju baax ja alaaji Cheikh mi Mbàkkeem Cheikh Modou Fadal ñun ñi jaxasoo alaaji tàkkoom seigne fallu jaxasoog Cheikh Abdou Karim mbake mu seigne fallu ba ci xalifaam bu tedd bi nga xamne dafa yor ñaari cër dafa yor cërub seigne fallu way yor cërub mam Cheikh Ibrahima Fall wallay seigne ko ñaanal mu yàgg fi lol te wér seigne Abou Baraka ibnu Cheikh Modou Fadal mbake waye mbokku talibe ngi ni jëwriñ ñi ngi ni ñu nuyu ko mu présenté wu ñu laaj ko ñaari baat ci magalu safar 18 édition 2020 bi naka la ko dundé naka la ko yégué ak xew-xew bi nga xamanteni amna ba aduna yeb doon wax naan magal gi dana am ak du am ak ndigal yi nga xam ne Cheikh Mawdul Muntaxa xalifatul am fi tarixatul muridiyya joxe na ko ci màggal gi te biñ ko xoolee bi mu ko joxe ba tey mbooleem taalibe yaa ngi warloo ak ndigal yooyu di saafoonteeg sart yooyu kon jëwriñ ñi ngi leen nuyu di la jaar ñu bàyyi la nga nuyoo présenté sa bopp wax ñu yaay kan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di ñaanal suñu bunt ci kër sëñ fàllu Mbacké muy sëñ Basirum sëñ fàllu yal na ko fi yàlla yàggal allahumma amin ak kanam njaboot yi ak taalib yi yëpp ñun suñu buntu sëñ Fallou mhm. li ñuy wax ci suñu bopp doy na ci seere mhm. sëñ fàllu nee na mhm. soo toogee jàq jàqle mm. boo ma woo juróom-ñaari yoon. Mm-hmm. wuyu siw ma. Mm-hmm. xoolaatal sa bopp baax. fàllu mooy kii man kanamam man gannaaw. sëñ fàllu mm-hmm. amul morom amul dendandoo. kon ñun ni ma la ko bëgg a misaale mbokku taalibi rek. ci dund wi ñu dund. man maa ngi jóge ba. Euh, Touba Géejawaay mais màggal gi ba ñu waxee ne màggal gi day am ñuy werante màggal gi dina am ak màggal gi dina am bañ waxee ju jëmmi màggal gi day am. man de li ma lay wax témoignage yi may jëlee ci sama bopp laa lay ko waxee. keroog bañ ne màggal gi day am fekk na ma ci siburu. mais ñeenti fan bi ba mu desee ci màggal gi la loola tàggoog man. mu xam ne suñ borom dama woo ci màggal gi dama war a dem fekkee ji ko. nun nag danoo amul lu sëñ Tuubaa lu sëñ Tuubaa na bëgg rek loolu lañ bëgg. lu sëñ tubaa bëggul loolu bëgguñu ko. ñoo ngi rafet njort te ñaawar xalifa général bii mhm. yal na ko yàlla yàggal suñu kanam yal na ko sëñ Muntaxa yal na ko yàlla yàggal suñu kanam yal na ko yàlla yàggal suñu kanam sëñ Muntaxa nag mhm. day jëwrin ci suñu yoon wi mhm. yàgg nekk jëwrin ñoo ngi koy ñaanal Mbàkke bàllaay sa mun Muntaxa moo koy xam ne ki nga xam ne daa gëmmi bëtam bata ba pare di gis kon Mbàkke yal na ko fi yàlla yàggal ak mboolam njaboot gi màggal gi nag li liñ ci dogoon wax ko ci ak liñ ci doon déglu liñ ci doon sërmale loolu lépp kenn ku ne bay nga am yàqin ci tàggoo na moom guddig bi tàggu na nu tàggoo na noog moom tàggu tàggu na nu la sëñ Fallou waxoon rek jiba muut raf euh, koorlu daal dara direct moom lan gis waaw te lii ngeen ko fi taxawee heure bi déwén maa ngi ñaan ci yàlla ak sëñ Touba di dogu ci baaxu sëñ Fallou mi ma yaakaar ba heure bi déwén yàlla na nekk fukki télé ci yéen wasalaam ci barke sëñ bëggoon nanoo xam tuur bi ak foo bawoo man Mbaye Dieng laa tudd. Mbaye Dieng. waaw foo bawoo. maa nga maa nga bawoo Ndondol. Ndondol waaw. ndeysaan. Ndondol ci ginnaaw ginnaaw Bambey. Bambey waaw. dund si woon màggal gu safar 2020 gi ak ndigal li sëñ Mountakha joxe woon ak li nga xam ne war warloo woon na ko ak mboolem administration sénégalaise. naka ngeen ko dundee ak ban yëg-yëg nga ci am. ma ci ma ci am. Mhm. mooy di leen yaakaar rek. ndeysaan. sëñ Mountakha. Mhm. yàlla na ko fi yàlla yaakaar. allahumma amiin. yal na ngeen yàgg di taxaw nii. amiin yaa rabbal aalamiin. di di di ko encouragé. noonu de amoon na kenn du may sëñ Touba. Mm-hmm. yaakaaroon na kenn du may sëñ Touba. ñoom rek la ñu yaakaar. gerte donc kooku gannaaw yàlla ñoom rek la ñu yaakaar. wallaay ndeysaan guddeeg mm-hmm. man de fa ma toll maa ngi ci ñoom. ndeysaan man. ku ma toll maa ngi ci ñoom maa ngi sama njaboot. ak ku ma dëggal nag. Mm-hmm. ànd ak man ci yoonu sëñ Tuuba. macha yaakaar. waaw jërëjëf jërëjëf. ñoo ko déggatoo sunu baay bi moom ma nga jógee ba booru ndol ndol ca ginnaaw Bambey waaye dégg ngeen ko doyloo Serigne Touba Khadim Rasoul yaakaar Serigne Touba Khadim Rasoul même képp kot donc ba keroog yomal xëyam ca ngoon ba mu ñu yóbbu ca kanam Rasulullah alayhi salaatu wasalaam kon ñoo ko bëgg déggandoo màggalu Touba 18 Safar édition vingt fii ci biir jumaay Touba en direct sur Diassigui TV wala sur www.diassigui TV ni rek lay démé sa su ne lépp loo xamante askan yu soxlon nako ko lépp loo xamante ne na ci li dundal askan yu lépp lo xamante ne bokk na ci ciy jox information askan wi ci xew-xew yi nga xam mi ngi am ci réew mi na nak xew-xew yu ni mel ndax buñ né 18 safar nee naa àdduna li muy rëy rëy rëy rëy rëy Sénégal limuy muy rëy rëy limuy tut tut tut tuut tuut benn feete fi am muy bés bi 18 safar bésu magalu Cheikh amadou Khadim ndax néna gamu julit jullit yëpp ko bokk umma islamiya yëpp ko bokk fi ba Arabie Saoudite benen fête bu fi am bu ne amone na fi waye magalu Serigne Touba magalu Cheikhul Khadim gi 18 safar moy genn bés bo xamanteni moy fête bo xamanteni lu ñëw dolli ko waat la ci diné l'islam rawati na fi ci bir Sénégal waye rawati na ci bir Touba Mbacké gi nga xam ta neena len legi 1921 magal gi nga xamni mom la Serigne Touba njëkk wote xew-xew da ci amone tombé won ak mbass mu mel nii tombé won itam bisu talata ñu xol tay ji 18 safar 2020. tombe waat ak talaata tombe waat mbas amaat ci àdduna wërngal këpp kon nee leen loolee du saayir loolee du saayir waaye ku gis Serigne Mountakha mbake wax ji mu wax ndigal li mu joxe ak matuwaay yi mu ci jël ba nu mën koo màggal ci jàmm ak salaam ba fi mu toll ni di wax ni fi ne fi ne léegi màggal gi jeex waa ndax safar gi moom fi ak safar gaa ngi fi rek màggal gi jeexul waaye jëmmi bés bi jëmmi yor-yor ba buñ demee ba yogg ca muy jeex bañ naan suba gannaaw suba ma ngi cay bëgg a ñu xam ne kon Serigne Touba du moromu lu yàlla bind moromonte wul ak lu yàlla bind ndax koo xamante ni kenn képp la dëgmal muy rasulullah alayhi salaatu wasalaam suñ Tuubaa kenn képp la dëgmaloon muy suñu borom waaye suñu borom jaarale ko ci rasulullah ndax xam ne àdduna doomu aadama mënta ñàkk am jëwriñ ci yoon bi ndax ñu ngi ne li coow lii bëri bëri kenn ku ci ne am nga kër goo bokk kenn ku ci ne kër ga nga bokk ka nekk mooy seb jëwriñ kookoy sa bunt ci Sëriñ Tuubaa kon kenn ku ñu ne am nga bunt boo war a mën a jaar ngir yegg fa nga jëm kon ñom no ngi ñaan bu baaxa baax Cheikh Modou muntaha yal nañu ko yalla fayal yal ko fi sama borom baye mu yag fi lol di ñu jité ndax nak neena lu way mëna waye di waye di waye di lu way mëna sik sik sik sik, bo boo jàkkaarloog jëmmi Cheikh Modou muntaha Mbacké ci xol fotom wala nga xol jëmmam dis gor dis julit di nit ku baax bo xolé gorom sa war na daw kon kookee mat na way kookee mat na sak kookee mat na tiitar kookee mat na li mu doon ndax ki ko ko def moom moo ko def li mu doon tamate na ko sëkk kon na nga ko ñaanalaat mu yàgg fi lool moom ak mboolem njabootu Serigne Touba ak rakkam yeeg ñëpp waaye itam di ñaanalaat bu baax a baax Serigne Abo Baraka ibnu Cheikh Modou Fadal sunu bunt ci Serigne Fallou tey kii fii sunu Serigne Fallou di ko ñaanalaat mu yàgg fi lool te ànd ak wér wallaay sax ndax mate na ko lool boroom ñaari cër la am na cër ci Sëñ Fallu waaye am na cër ci mam Cheikh Ibrahima Fall kon nong koi koy sant bu baax di ko ñaanalaat Balla Aïssa mu yàgg fi bo lem njabootu Sëñ Tuubaa gi doom yeeg sët yeeg sëtaat yeeg ba ci ndongo yi ndax ñoom du wax ba jeexal te tudduñu ndongo yi loo wax ñu ne la ndongo fi kon ndongo yi itam ñu jar a bàyyi xel la ñu jar a ñaanal leen bëgg na jël benn soxna rek benn maam jaara wala benn soxna Awa Bousso rek mu wax ma ñaari baat moom itam ci màggal gi su ko defee ñu door a ñu door ñu ñu cameraman da nga may yaay boy bal mama laaj la màggal gi nak ngeen ko dundé màggal xanaa ni ñu ko wara dundé rek ñu ko dund baax rek ta rafet ci rek ñu xam ci li ci baax ta rafet ko def ko ci rek xamni ne màggalu maam borom tuba gu mat màggal gi lool lool mhm. ñu sant ko ci gëreem ko ci lool sha allah buma bu ma la laajoon fan nga bawo ci rew mi fan nga ma wax xana mbur la mbuur wa ta señ te tuna am sa mag la ngoog mbossu ju mbossu ju wa sa mag la ci yalla ngoog waye ngeen jóge mbur ñëw magal ci ak digle yi nga xamanteni ni ngeen señ Muntaxa digle ko ndax ma nga la gis nga tak sa masque nga xam naa ne potu gel baa a ñàkk hmm. hmm. bu mat Touba te xam dégg ndigalam di ko def moo baax hmm. ko am sa buur di sa borom maa sëñ maam sëñ Fallou Mbacke si gi ma war xam ne damaa doyub sëriñ te sëñ bi ñëw ci seex yoo xam ne ñu ngi tudd kii tudd sëñ Fall kii tudd Xaadim Xaadim Rasul ñaari seex yi ba pare ñuy faral di wax naan mën na kanamam mën ginnaawam yow loolu noo ko déggee yow man kanamam man ginnaaw hmm. xanaa li ci war rek laa ci dégg <laughs> bu ma la ne woon nga soññ mbokk mbokk taalibe yi xam nga dama ko ci defoon ñëw faju si man daa moon lu ma jommaloon ay gëlëm doon ma daane ma nekk élève di jàng gëlëm di ma daane far Tuubaa Mbàkke ma ñëw di fa yàgg di fi toog di fi tey sama jawaru mag ji mooy mu nekk di ma fi liggéey ay liggéey sëñ ñu bon di ma génn dëkk bi te ngi bëgg dëkk bëgg fee toog te borom kër gi maa moom ñu bokk ndey baay kooku di ma liggéey yu bon di ma liggéey na ndax nee na moom tawatam la indi ci sëñ Fallu di ko kalaame li mu wax nag moom moo ko waxal boppam man dama ko jottaliwu ma moo ko wax kon nag sëñ Fallu moom lañ cay wax rek mën na kanamam mën na ginnaam te nag ki xàmmee ker ci biir lëndëm defe naa ni kookee du moromu ko yàlla bin kon sëriñ Fallu yàlla ñu ko yàlla fayal kon mbokk taalibe yi sama cameraman damay topp rek ñu daaj di àndaat seetaat beneen bërëb bu ñuy dugg rek laata ñuy jeexal jotaay bi waaye ni ma leen ko waxee woon en intégralité lépp ci biir Diassigui TV lay xewee saa ne topp ma ñu dem incha allah rabi jël lañ koy jeexalee daal di bàyyi nag ni li ci des ak ñeneen ñi ñoom it ñu ñëw barkeeloo ko ñu daal di waajaat xam ni bis yaa ngi ñëwaat te du jeex ndax bis yaa ngi ñëw suñu kanam lu Mawlud Nabi mi ngi ñëw màggal Kazu Rajab mu ngi ñëw màggalu Daaru Muxti ngi ñëw leen lu ci ne mi ngi ñëw ndax nee naa ñun moom kenn du ñu tere di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba ilaa yow mi diini jaa ngeen jëf mbokk yi su ko defee rek euh, niñ ko waxee boobu ba tey rek ngeen gis ni fi mu toll ni jamono bi tembe gis ngeen ko jumaa ji mi ngi fees dell ba tey waaye lépp tam mi ngi tege ci kaw organisation lépp mi ngi tege ci kaw hiérarchie bi nga xamante ni mooy li sëñ Muntaxa joxe woon ndigal mooy képp koo xam ne ñëw na ci biir dëkk bi sa masque mi ngi ci sa kanam yaa ngi laal ci gel yi itam ngir wàccoo ak ñi nga xamante ni ñooy autorité locale yi ak autorité administrative yi ak autorité ñi nga xam ne ñooy sanitaire yi su ko defee rek liñ wax boobu ba tey rek gis nañ ni yoon wi moom li ko tënk weesu leen lu dul tënku ci ndigal jëfe ndigal bàyyi ay tere dégg nañ ko ci waa kër njabootu sëñ Tuubaa gi waaye dégg nañ ko tam ci njabootu waa kër sëñ Fàllu ñu wax ni ñoom daal dara itteelu leen dara ñoru leen lu dul tënku ci biir ndigal li nga xamante ne moom la sëriñ bi di joxe saasu su ne ba tax na nag ñun tam li leen wax rek mooy nii ngeen ko gisee nii ngeen ko xoolee nii ngeen koy déggee boobu ba léegi ma nekk ci liggéey bi ak mbokku taalibe yëpp nii rek lay demee saa su ne en intégralité ci biir 3w point diassigui tv point com waaye mu mel ne rek fa tey rek ne fii la ñu bëgg a wàccee suñu dellu nag ci biir kër ndax nee nañ gi diggante 10 yor yor gi tisbaar gi mooy dëgg dëgg dëgg gi ndax mag ñi sax dem nañ bay sàcc di wax naan jamono boobu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dana nekk ci biir Touba jumaa ji di ko di fi di ba tax na rek kon noo xamante ni moo weesu kon su ko defee rek jox la dig daje incha li ci des ci biir daara yi ci njàngum xasaayid ya waaye ci biir cant yi ak bernde yi gannaaw loolu la sëriñ bi santaane jërë ngeen jëf wasalaam xidmatil ma isani سكرت وإسخزني بخدمتي خدمتي في علني لو وفاك ولمي لو خطا بداخيا بما يخيب ماديا وانخاد لي أخراديا زادا لدار كرمي أيا سودان جوغلين دقلو موسى سرين توبا متقفي مصطفى من ووياسي gëjoon naa way ngir gaay yi sàcc taalif te ñoom seeni baay ferul baasin fa yaasin su bokkunu waay xudoo su réewi soo daan gumbay xeleer yi sax di balamtu yaasin ak a neexoon tey maam angaaru xaalis kon ma ni meng dem ba siyaara yaasin diggoon dëgg xëy diggoon dëgg xëy ba faf dee